ah ci li ñu def de sa doom lañu jàpp di. sama doom lañ jàpp ma kontaan trop ndax xale bi dafa dëgër bopp taxawaalu guddeeg bëccëg dañ leen ni ñu toog ci kër yi ba sonn kenn mënu leen a dëcc li police def nag dama ci kontaan bu ñu teggi seen tànk ndax bu fekkee ne xale bu génn ñu jàpp dóor ba ngay bëgg a dee bu yàggee ñëpp dinañ toog ci kër yi. waaw moom moom xanaa daawul toog. daawul toog taxawaalu guddeeg bëccëg da ngay wax bay bëgg a dee mais lii police def dina tax ñu tok ci biir kër yi ndax gis nga febar bi doxul de ñun ñoy dox du yobale febar bi donc nak police bu ñu teggi seen tànk ku ñu jàpp nañ la dóor ba nga ni waalee bu yagge ñëpp tok sen wetu nday yi. man dama cee kontaan. yaay yaay tamit yow xam sa doom tamit bu ko jappé dóor la ak doom ni mu soré ci xol tamit amna lo xamni tamit du neex dal ñun lañuy jappalé ñun lañuy jappalé parce que febar bi ni c'est sérieux dafa nekk lo xamanteni c'est une maladie très sérieuse nit ñi nak conscient wuñu ci lolu il faut que nag ñu ñu wax leen ni feebar bi du ay caaxaan réalité la dëgg la mu ngi ci dëkk bi te feebar bi doxul nit ñi ñooy dox di ko yóbbaale donc confinement bii ñuy def sunu intérêt la nañ toog ci biir kër yi xale yi toog ci biir kër yi ku génn bala ngay dugg ci biir kër raxasul ak omo eau de javel wala saabu ba say loxo set te ñu toog surtout toog bi toog bi daal bu ñëpp toogee ci seen wetu ndey feebar bi dina taxaw. waa déet man kay li ma jaaxal mooy xam nga tamit policiers yi bu ñuy dóor yaa ngi nii di faj fu mu nekk nii di maaseek di dàmp lu leen nga dugg ci. ndax ca ki nu dóor wax dëgg yàlla du xale magum jëmm la te sa doom la. faj benn nit moo gën faj téeméeri nit.